internationale internet yi seneinfo.net ak seneinfo international ñu ngi leen di nuyu fas yéene leen defal tënku xibaaru tey mercredi di 21 octobre 2020 dañ koy tàmbaleeg xibaaru biir réew mi famille omarienne nag ñoom xamle nañ ne du ñu organiser lii di gàmmu 2020 bi li ko waral nag mooy jàngoroy coronavirus bi kon ñoom nag ñu ngi woo bépp taalibe daal bépp kon taalibe bu jokk si ñoom ñu ngi lay woo ngir nga toog sa kër kon. Euh, célébré fa kon lii di euh, naissance du prophète bi di gàmm gi kon ñu ngi woo daal seen bépp taalibe ñu célébré ko seeni kër kon rassemblement du am ñoom nag nee nañ dogal bi ni mel ah, li tax ñu jël ko mooy comme ni ñu ko waxee rek jàngoro coronavirus ba nga xam ne euh, mu ngi wéy di lëmbe àdduna ak fii ci Sénégal ñoom nak xam na lañ ba léegi ne li nga xam ne sax moom mooy ziyaara annuelle yi nga xam ne ñu ngi doon amal fii ci Dakar ak fële ca Louga yooyu itam dañ koy dakkal bu fekkee ca geneen wet ga nag euh, lii di famille Mame Rawane Ngom bu Paal moom ñoom xam nañ ne dinañ organiser dinañ amal gàmmu gi kon kon ñoom dinañ amal gàmmu gi comme ni ñu ko daan amalee euh, li ci soppeeku rek mooy daal euh, dinañ am na benn respect mesure barrière kon dinañ ko respecté ngir moytu kon wàllante jàngoroy corona virus bi. bésub mercredi bi ci la ñuy jébbal procureur euh, ñii di vingt cinq euh, homosexuels kon vingt cinq homosexuels li nga xam vingt cinq homosexuels yi ñu arrêté woon fële ci Sacré-Cœur kon euh, bésub tey bi daal lañ leen a jébbal kon lii di procureur ngir mu àtte seen mbir ñoom nag dañoo bénéficié woon benn retour de parquet démb gannaaw bi nga xamee ne sax seen déferment moo yéexoon kon dañoo amoon benn retour de parquet wante nag bésub tey bi kon la ñu war a jàkkaarloo ak procureur ñu fàttali rek ne ñoom daal ñu ngi leen jàppoon kon gannaaw bi nga xamee ne dañ leen bett ñu doon célébrer kon benn anniversaire ak benn mariage bu ay homosexuel ay mbirum góor jigéen mbirum Gaston Mbengue nag ak Gris Bordeaux mën nañ jàpp ne kon fi mu nekk nii ndox mu sedd am na ci euh, tuuru na si gannaaw bi nga xamee ne nag euh, kii di euh, Gaston Mbengue kon retiré na plainte bi nga plainte kon bi nga xam ne déposé na ko contre bi Gris Bordeaux nga xam ne da ko doon laaj 10 millions de francs CFA yu mu ko joxoon avance Euh, gannaaw bi mu waroon bëre ak kii di Balla Gaye 2 bu ñu sukkandikoo nag ci journal sunu làmb euh, kii di Gris Bordeaux sax dafa dafa jox Gaston Mbengue kon lii jox jot na jox Gaston Mbengue 5 millions ci 10 million yooyu Gris Bordeaux sax moom bésub tey jii sax la waroon euh, wuyu ji fële ca brigade de recherches pour pour audition waaye audition boobu kon dinañ ko dakkal gannaaw bi nga xamee ne sax ay bonne volonté kon jot nañ def ay intervention actualité africaine nag euh, li ko marqué ba léegi moom mooy élection présidentielle bi nga xam ne ñu ngi ko ñu ngi ko doon amal fële ci Guinée Conakry dimanche bi ñu génn commission électorale nationale bi nag moom fi mu nekk nii daal kon euh, mu ngi ñaawlu te sax nee na lii seelu lii seelu Dalein Diallo def pour génn euh, di wax ne am na ndam nee nañ loolu warul am. kon nee nañ kon rejeté nañ loolu kon li nga xam ne Cellou Cellou Dalein Diallo génn na di proclamer victoire ñoom ñoom rejeté nañ ko ñoom publier loolu di commission électorale national bi sax indépendante publier na ay résultats yoo xam ne bu quatre six quatre circonscription électorale seen ay résultats provisoires partiels publier nañ ko waaye nag euh, li ñu wone mooy kii di Alpha Condé daal moo jiitu ci quatre circonscription yooyu nga xam ne moom mooy Matam Matoto Kaloum ak Bofa Euh, par exemple bu ñu jëlee lu si mel ni Matato foofu euh, kii di Alpha Condé am na fa lu toll ci cent quatre mille quatre cent cinquante voix Cellou Dalein Diallo am fa quatre vingt cinq mille six cent cinquante huit voix bu ñu jógee foofu la ca Guinée dañuy dem ci république démocratique di Congo foofu nag euh, ay prisonniers daal lu toll ci ay té ay téeméer. donc ay téeméeri téeméeri prisonniers kon ñoom ñoo fa rëcc daal ñoom ñoo rëcc ci prison ci pris ci ab prison foofu la ca Béni kon ci prison bu Béni daal la ñu rëccee ba suba tey bii muy daal lu ñuy wooyee ab évasion spectaculaire. loolu nag mu ngi am gannaaw bi nga xam ne kon ab attaque dafa amoon ci prison ba attaque boobu nag ñii di groupe état islamique ñoom ñoo ko revendiqué. dañuy dem ci xibaaru international kon bitim réew ak France réewum France nag bésub tey bii dañoo fas yéene kon euh, jagleel ab hommage national kii di Samuel Paty foofule ca Sorbonne Samuel Paty nag muy enseignant boobu nga xam ne 47 ans la am te ñu faatoon ko bi ni ñu ko faatee sax ci li ñuy wax dañ kaa daggate euh, la ci watu kala ci ci ci watu ci watu collège ba mu doon jàngalee collège euh, Conflans Conflans nekk fële collège kon collège collège Conflans Sainte. Honorine nga xam ne mu ngi nekk ci Yvelines euh, foofu lañ ko rayoon kon ba daggate ko euh, ñu ne ki ko def nag ab réfugié la bu nekk origine nga xam ne d'origine tchétchène la am 18 ans moom nag euh, faat boobu nag ñu ne ñu ngi ko faat gannaaw bi nga xamee ne kon bi mu doon amal ab cour ci liberté d'expression ci liberté d'expression da doon amal ab cours daal ci la liberté d'expression ci la won lii di ay élèves am ay caricature ay dessins yoo xam ne ay dessins yu ñuy ne dañ ciy ñaawal Euh, yonent bi sallallahu alayhi moom la wanoon kon ay élève am euh, ca mujj ca mujj ga daal kon ci la faat moomu am ci l'enquête bi nga xam ne sax ñu ngi koy amal kon ci faat boobu ñu ko faat jot nañ ci kon euh, jot nañ ci defeere bésub tey bi lu toll ci sept personne ngir jéem a ubbi kon ab information judiciaire dañ koy tëjee ak sport ak kii di kon dañ koy tëjee sport kon ak lii di Paris lii di Paris Saint-Germain nga xam ne kon démb dafa lajj euh, ab match kon gannaaw bi nga xam ne kon match bi nga xam ne kon mu ngi ko doon amal contre Manchester United en Ligue de Champions euh, dafa lajj 2-1 kon euh, Manchester United moo ko dër de 1 kii di Sénégalais bi sax milieu Sénégalais bi kon di Idrissa Gana Gueye moom nag. sax note euh, kon note bu bon lañ ko jox parce que 3 note note note bi ñu ko jox mooy ci match boobu 3 3 lañ ko jox note 3 muy not bu bon ndax moom daal gis nañ ne doxaloon dara euh, ci biir match bi ba tax na sax ci mi bi sax kii di entraîneur ba di Tuchel euh, da ko remplacé lii ñu lay xëy lii la ñuy tey xibaar rafet seen taw li ñu jox daje ëllëg.